xam nga gars yi yéen ci li ngeen nekk ci li ngeen nekk ay waay génn leen fi ñu waxtaan ay waay ndaw Sam te su ko ci lii mooy lan la sama gars yi nekk France WhatsApp WhatsApp WhatsApp waaye Moustapha nag yow moom WhatsApp ko mën a WhatsApp kon lu mu doon WhatsApp eh, moom kii dafa dof WhatsApp WhatsApp eh, yi ngeen dal WhatsApp dama dëkk yow man sugeer yow gàddi nges gàddi nges waaw ko mu leen am li waaleykum salaam xool xaaral ma benn affaire bu garaaw. li ah. ma dugg nii Facebook. yaa ngi gis nii ah fett buttu. Facebook. waaw waaw fett buttu te dama koy waaw yow noo def ba dend ak jom ndaw si. waaw da ngay xaar rek xoolal ma Facebook. indi la ndaw su garaaw. loolu. waaw xool rusal ko nekk rusal. yëg li nga yëg ko gën a yëg waaye rusal ko nekk xaawal la beneen xaawal la beneen. ay waay Moustapha rusul ko nekk. doomi xaalis lii ngay gis nii maa ngi koy gis waaye rusul ay waay ay Moustapha ay xuy saat ay Moustapha. yow bu jëlee téléphone am sa téléphone. bu jëlee téléphone booy. léegi téléphone ko envoyé. sama gel la quoi. moom ah, sama gel dañuy gérer. yow dañuy sama gel la dañuy gérer maanaam. leen dong nga ma jaaxal xaaral leen dama jaaxal mooy woon ni sax ñoo ko benn. yéex a. Hmm? ci gone yi daal xam naa ne. léegi ku ci bëgg ci ko. mu juddu daal neex na ndeke jox ma ko. ma jox la ko li xew nii xamuma ko. ma jox la ko jox ko waaw. léegi xam lu whatsapp nga wax ak nga wax ak moom. da nga moom xool la da mu ne ko moo xamul waxee yii de moo xamul xam waxee genre quoi la xam moom voilà. ak waxal. allo bébé Tafa bébé Tafa bébé Tafa Pateme. seen koko. <laughs> yow mu ne ma xam wax ak moom ku gën a neexal yow la ku gën a neexal yow la na aja waxal mon fils que mon fils que ne ko fils que sa grande kii de la patak ciiri voilà léegi waxal ak moom allo mon fils que euh, patak ci bëgg naa la trop bëgg naa la trop vraiment je t'aime je t'aime encore je t'aime je bëgg encore waaw il faut nga jaay koy français ndax ñoom ay tubaab lañ. yow nag bëgg nga. déggul tubaab déggul te yàlla yow yóbbu lool rek. na benn na benn na. mu ngi ñaar rek mu xam ko jël ko kii ko dégg na du la ñeme yow. da ngaa tull ni nit ñi du la ñeme. allo. nit jullit bëggee weeru laa la bëggee. i. kii mu ko seetaan kii déglu yooyu de. déglu yooyu. itam da ngay da ngeen yéexoon war la dëgg. da ngeen nekk ay mag war na ci koñ bi xoolal. dégg nga wala yëngal gësam mais nekk ay doo daa nekk ay booy. ay sol ay ji nga leen di soirée ngeen ko yii waaw ay ah, ay ay. Ah, la. di sa sa lii bàyyi yii tamit. salaamaaleykum. maaleykum salaam. fekk nañ la. waaw léegi Matar naka mu. maa ngi leen doon bàyyi xel. ngay wax ak ñoom. te gone bu nekkee ci ay mag. dinañ war a laa laabiri leen ci jamono bi nga tool ndax jamono bii jamonoy téléphone ak ak xeeti whatsapp yi yow yow yaa ci toll te yaa leen ci war a dimbali waaye nag dina wan image boo xam ni kooku solu dara dafa ñaaw loolu nag day dafa mat di moytu ndax fi ne koor tamit sa bët dafa war a woor comme ni sa làmmiñ woore sa gémmiñ dafa war a woor ci mbooleem loo xam ne lu bon la kon nag bu ngeen seeraanee doon ay mag jëmm di xool ay image yoo xam ni wóoru leen koo gis wóoru leen cee teg seen bët dina def ci yéen jeexital te jeexital jami def ci yéen bu ëllëgee sàkk ko mën naa am ci yéen ndax lépp lu mu tege rek mën naa jàll ci biir xol ba te bu yàggee mu jëfloo jëmu ja moo tax ñuy daw image bu bon di daw loo xam ne lépp lu war a wut ci bët war cee tege loolu dañ ko war a sàmmanteeg moom ci koor ak budul koor diine nag moom laay laa biirante la comme ni ko Muhammad Rasulullah waxee sallallahu alayhi wa sallam laa biirante la kon nag loolu maa leen ko nan ko doolante rek te saa bu ñuy dee ñu doolante ci diine te moytandiku yenn image sekk nag loolu moom maa ngi la ci yedd bu baax boo légee boo yoree say yu mel ni ay image ak réseau yii nanga teg teggi ñi ndax ñii moom waruñoo dox ci yooyu maa ngi jégalu bu baax na baax jërëjëf Matar jërëjëf dalal la. gis nga Moustapha Matar mais di dem ku baax la. ku baax la man booy bii daana faral di ñëw ci toog ci ñun xam boo ëpp lu muy toog ci ñun. Mhm. waaye bis ni ki tey bu ñëwtee mën ko jóg. gis nga Matar gone bu baax bu yaru bàyyam nga ko kii bi mu gënee jamono ndox daa manqué de ah. wóor la man naan noonu la ma la ma fekk tudd ma eh, eh, booy booy diglu yow booy amoo loo wax defal ndànk rek booy diglu booy amoo loo wax amoo loo wax bàyyi yéen amu leen lan ngeen di wax parce que émo ngi mu toll ni yéen ma toog di wàcc ngeen nangu sama téléphone di xool li ki ne matar laa ñu ngi ëpp mu laamee rek mais yéen li ki ne lépp yéen yéen ko xool gis nga ma a baax rek daara jëm doon ah. jàngi musu faa jooy loo gone mu soog ko doon jàngal lu ko naqari wàcc na yéen jàng yéen jàng yi ñaan jàng jàng xam xam jàng tasu jàng lépp kii nag moom ma xamal la leen ci moom whatsapp waaye ba ban ko yóbbu ca daara ja ca daara ja ak ak ak yooyu xeet yooyu yëpp moom la daje daara ja daara ja ko yóbbu bal wax la ca xew daara ja soxna sëriñ bi la këpp añam parce que yéen jàngu la jàngal ni nga jàng yéen da nga jàng yéen da nga jàng yow sa kanam bi da saxum saxum da nga jàng yow da nga jàng ngeen dara ba yéen di ko maa ngi doo nga yem si seen nag nga yem rek te na baax la jàng ngeen dara xaaral mu laa gis rek am na yaranga suñ bon fu jëm yóbbaale ko fa waaye li nu ma mi wax wax na ko ci leer te gone gu ndaw góoma gu ñaar fukki at ñu làq ñeent fukki at mat ko bàyyi mu dikk ñu waar lii nag yaraa nga mën koo weesu suñ bët yi nañ ko bu ajee patt nañ ko patt bu ajee muur nañ ko muur su làmmiñ nañ ko téye waaye nekk ñëw ci ak kër war a woor si wóor si wóor lu nekk fii jaxaseeg lu xooli ñàkk fay la ñun dañuy bëgg a ñàkk jom Moustapha waaw gis nga mataar bi yàlla dogalee mu taxaw fii mm. gis nga karo yi su ko mënoon a dama ko naan dindi ni ci yàgg yàgg yàgg ni ci suuf ci men tëj man ne nii ma toll bu ma yebbee ko xamal ni ko yow moom xajoo ci suuf damaa damaa yebbee yow kay moom xajoo ci suuf maaye man mii nga xam ne xaw na waa sew kus néew bu ma mënoon dugg ci suuf si dama ci dugg ndax lépp lenn lépp gis nga waaye doomi sekk doomi doomi Ablaye Seck gii